Euh, ci téléphone bi ak ñun colonel Aaj xam ngeen ni dañoo euh, daal di woon ko ñaan ay bés bu ne rek ñu def ak taxaw seetlu ci xare bi nga xamante ni wala boog euh, congee lañ ko mën a tuddee gu am ca Ukraine tukkee ci waa Russie moo colonel maa ngi ziar bu baax Aaj. maa ngi di nuyu auditeurs yi en plus di di nuyu aussi suñu soldats yi nekk fële Casamance parce que comme guerre la ñuy wax. Hmm. dañu ñaanal yàlla dañuy wut ñu am ko. amiin yaa rabbi. Euh, ab diire ngi ñu ngi ci euh, li nga xamante ni mooy réero bi diggante Russie ak Ukraine euh, jamono yi am na ñu wax ay échec ci ci wetu Russie am ñu ne déet xëy na tëralin yeneen la stratégie est-ce que teelul wax waxi échec wala. waa teel na teel na parce que ñun waxoon nañ ko ci ñett wala juróomi fan bi ñu commencé seen opération dañ ne woon. offensive c'est-à-dire euh, euh, première euh, phase bi moo moo moo échoué mm-hmm. mais du du du opération bi parce que opération bi yëpp mën na dem ba euh, temps bi ci Russie la nekk Russie moo am moo am kii moo am euh, avantage. si ou yage. waaw mais déjà gisoon nañu gisoon nañu loolu ci commencement bi parce que ni ñuy xeexee du loolu mais li gën a am importance c'est pas échec bi. Mm-hmm li gën a important moo li ñuy wax réversibilité c'est-à-dire boo échoué nga am feneen foo jaar. Mhm. mais dafa am Russie amuñu amuñu problème boobu am nañ ko actuellement parce que surtout bu ñu xoolee attaque principale bi ñu jëlee nord lañ ko jëlee mooy Belarus di wàcc. Mhm. xam nga waxoon naa ne dans quatre jours fukki dinañ egg Kiev mais dafa mel ni ba léegi eggaguñ fa. Mhm. loolu nag li koy expliquer euh, bari na mën nañ ci mën nañ ci dellu si tuuti mooy euh, euh, opération militaire spéciale bi ñu waxoon xam nga xam nga du guerre opération militaire spéciale la. Mhm. ñu indi si ñaar fukki junniy soldats. Mhm. ñeneen tamit nekk ñaar fukki junniy soldats. oui mais seen réserve dafa nekk euh, juróom-ñett fukki junniy soldats donc mat nañu sax armée russe si réserve donc boo boolee ñaar yi ak réserve yi. Mhm. day day tax day day indi presque un million million soldats yoo xam ne ñu ngi taxaw ci kanamu Russie pour que pour que Russie xeex ak ñoom. il faut ñu am lu ñuy wax multiplicateur de combat multiplicateur de combat nag moom la ñuy wax sekki c'est comme mbër buy buy buy turoo safara ba pare sekki. di sekki. Uh-huh. waaw sekki boobu li koy indi mooy jaww ji. Uh-huh. nga am ay avion yoo xam ne day day day tere nit ñi euh, ñu leen manœuvrer. Uh-huh. ay char mooy char yooyu nga gis euh, Russie yore ko ay ay ay BTR ak BMP et cetera aussi génie doo ko indi parce que génie mooy ubbi yoon wi ku la ubbil sa yoon. voilà yooyu ñooy lu ñuy wax ay artillerie. multiplicateur de combat mais li problème bi c'est que euh, euh OTAN dafa ñëw indi. Mhm. armes yi ma la doon wax bu le passé. Mhm. armes yoo xam ne dañu soxor ci ay charge yooyu. oui voilà loolu sax. moo moo yokk résistance euh, Ukraine. waaw mhm. waaw parce que ay M119 ben soldat moko yoré am na arme yo xam ne benn soldat moko yoré té te mën na mën na rey char yu bari donc lolu moy lolu sax bi ñuy ñu gis ci bilan bi ñu ne euh, juroom ben généraux lañu ray rey bien sûr euh ñoo ñoko wax mais Russes ben rek la wax ben ne benn wala ñaar ñaar lañu ñu actuellement le rey nañ donc ñooñu kon nga xamné ne. Mhm. arme yooyu fi ñuy attaqué Russie si si si si si digg bi la parce que euh, commandement bi généralement ci digg bi lay nekk. Mhm. wala ci ginnaaw ci logistique bi donc char yi dañuy attaquer logistique bi moy moy ñu leen di jox essence bi xam xam char essence lay dawal. Mhm. donc bu ñu attaqué euh, essence bi attaquer digg bi day tax char du ñu mën a -hmm. parce que seen benn borom xam-xam nee na woon booy booy xeex nit na nga ko xeex fu mu nekkul. Mm-hmm. loolu mooy loolu mooy loolu mooy soldat loolu mooy eh, ci asymétrie loolu mooy eh, ensuite am na beneen élément bu ñëw autrement dit envahissement nit da ko war a waajal de xam nga dal xel weesuwul nga ne cirib ci kër goo xam ni nga ne da nga bëgg a tëb sàcc ca yow miir ba euh, daanaka toll ni asamaan nga ne cirib dugg xamoo looy fekki. waaw waxoon nañ ko fi ne nañu histoire daal wax na peut-être que ñu benn moom moo def fenn dañuy ci histoire

te gars yi leen gaañe lan la mooy ñoom euh, commandant Massoud ak seen i euh, seen i combattant yoo xam ne ay euh, ay yëre bu ñu sol sax amuñu ko. Mhm. mais dëkk moo naqare jël depuis dëkk yi. finalement bu ñu moytuwul kon kerse revers lañ fa nar am. parce que yaa ngi naan bu yàggee ce sera à l'avantage de la Russie mais Russie parallèlement aussi sanction économique yaa ngi yaa ngi taw ci kawam ah bu yàggee mun na bañ a baax ci moom it en plus maintenant des des pertes en vies humaines ci côté soldat sam waaw man dama ne mën na baax ci opération bi mais pas mais pas ci xam nga guerre. Mhm. du du opération bi rek. il faut nga gagner la paix. Mhm. américain bi ñu duggee Irak defuñu une semaine jël Bagdad mais après gagné wuñu paix. Mhm. c'est-à-dire que seen unité yi fa toog. dañu toog si ay dëkk. ok c'est-à-dire nga ñëw gagné dara par exemple mën nañ dugg Kiev peut-être dans dix jours xam nga dañu ñëwoon vingt jours war nañ dugg Kiev parce que cent soixante-cinq kilomètres la bu ñuy attaqué ci kaw mais mën nga mën na ñëw peut-être euh, fin du mois bi wala ci biir koor ñu dugg biir keer mais boo duggee foo xam ne yaa ngi toog ci ay dëkk. Mm. mais sa toogin du jekk. Mm-hmm. donc loolu mooy euh, nga nga gagné opération bi ba pare. oui mënoo gagné guerre bi. guerre bi mënoo mënoo voilà. justement moo moo tax euh, xëccoo bi ñoom dañ koy def ni waaye ku ne sa xel ma nga ne ci négociation maanaam liñ daan picc ngi ci kaw waaye xel maa ngi ci suuf ñoom ñëpp xam nañ ni bunt bi du leen lu may fexe. ak juboo lan moo leen ca mën a yóbbu maintenant ci ay négociations ñanga ca naam mais lu ko lu ca mën a indi résultat. c'est-à-dire euh, temps guerre xam nga bu ñu commencé guerre ba dañuy ubbi ay négociations. xam nga gis nga au début ñu ubbi négociation mais négociation yooyu. Mhm. c'est les euh, commandants unités yi ñoo ko ñoo ñoo ñoo fay toog. Mhm. c'est surtout pour ubbi ay ay yoon pour génne nit ñi xam ne dañu feebar wala soldats yi xam ne dañu voilà yooyu yooyu yooyu la ñu commencé. Mhm. bu ñu demee bu fekkee ne egg nañu fi ñuy wax euh, euh, ci làmb. Mhm. Euh, waaw waaw dañuy dem benn benn point boo xam ne kii kii attaqué xam na ne mënatul am lu ëpp li mu am. Mhm. te fayu bo te fayu fayu ko fayu ko fay boo xam ne day ëpp li mu li mu ci war a def. Mhm. kii kii kii kii kii défendre xam ne li muy defaan moom tamit. mënatu ci yegg loolu la ñuy wax stalemate. Mm. côté boobu loolu foofu rek moo mën a indi négociation. Mm-hmm. dafa mel ni ñu ngi ci xaw a egg. xaw nañ ci egg kay parce que même même Ukraine bu demee ba bay bay nangu ci xelam mbiram neutralité ca ca njëlbeen moom waxul woon sax wax ji. ah foofu donc ñu ngi egg ci ñu ngi nangu aussi ne dañuy wàññi seen opération yi mm. jëm jëm Kiev. cest à mm. moo doon li ñuy wax sax mooy xolu xolu guerre bi parce que il ñu jëloon Kiev. bu ñu teeloon mm. ko jëloon jël dañuy dindi Zelensky wut benn euh, beneen autorité teg ko foofu. Mm. donc léegi presque. Euh, no boobu moom defuñ ko déggee te dëkk kër dañoo xam ne bu yàggee dañuy seen doole dina ca yem ca duñu am luñ bëgg moo tax ñu bëgg a dajale doole ja ca fenn fi. voilà. ci mm. ci négociation yi. donc ba mënul gagné guerre bi. da ngay dem mm-hmm. ci négociation. léegi egg nañu ci euh, mën nañu wax ci làmb da nga ñu xaw ma. bu mbër bi demee mbër bu ndaw bi demee ba teg ba teg sa ba teg ba bopp bi si sa si sa si sa kii. Hmm. si sa kii Ablaye tey ko jàppale foofu Ablaye Diop di ko bëgg làmb la. waaw Ablaye voilà Ablaye Diop làmb si loolu woon comme comme bii passé rek. Hmm. voilà donc euh, loolu moo am loolu nag il faut loolu am parce que même négociateur xam nañ ko. Hmm. tant que loolu amul doo mën a négocier. parce que terrain bi mooy déterminer négociation yi. oui bu ñu jékki-jékki Russie génn am def beneen opération boo xam ne dañuy fël day gis négociation yi taxaw. donc tant que ndënga ñuy foofu ku nekk taxaw xam ne fi nga egg moo la jox culminé culmination fi ñu egg mënatuñu egg lu ko raw ñu ngi ci coppaan ñu sës na waaw ñu jëli lu ko raw donc mhm. foofu dañuy toog waxtaan maintenant li tax du yëfu nit mooy euh, déjà euh, en attendant bakkan yu bari dina rot lu bari dina yàqu et économie bi sooxe moo euh, du yëfu nit de guerre moom am na sax ñu foogoon xewi na mais mais dafa war a xewi parce que kii Russie li ñu def nii guerre préventive la mën ñu wax guerre boo xam ne day artu waaye lo loo xam hmm ñëwagul. Mm-hmm. mais kooku du droit international en tout cas parce que droit international wax amu ci. Mm-hmm. diplomatie préventive mo am c'est-à-dire ngay waxtaan. Mm-hmm. pour bañ leen li nga xal li nga mbébét am. ok mais mënu ko def ci guerre parce que dañ ko théoriser bi ñu ko théoriser 2003 le ko ben américain bu ñuy wax Volvovich moo ko théoriser won ci Irak. mais buñu tolé leen Amérique toog 11 septembre leen Amérique tok di xaar ñu attaqué ko da fay xol dëkk yi nga xamné ne. mën nañ ko attaqué mu attaqué la loolu ñuy wax guerre préventive guerre préventive nak guerre illégale Donc mm. donc Russie bi guerre ni guerre bi illégale bien que mm. fi ko la wax différence bi mooy loolu fi ñu ko ko expliquer donc guerre préventive la def. non mais euh, loolu kay waaw mën nañu ko expliquer mais mënuñu ko justifier agression moom kenn mënu ko justifier. kenn mënu ko justifier surtout dëkku mm. jàmbur. Mm-hmm. voilà léegi Voilà. te aussi dafa am beneen affaire bu ci nekk. Mm-hmm. Euh, dinaa ñëw léegi ci bilan bi parce que xam naa ko jëli. Donc,

ok seen seen benn kii sunzu daf ko waxoon daf ne dangay ngay jékki-jékki wane faiblesse boo wanee faiblesse. Mhm. nit ki defe ne nit ki dafay dafay dafay kii dafay dafay defe ne yow sa sa. day day xaw a sa sàgganu tuuti. day xaw a sàgganu. Mhm. léegi nag Russie est-ce que tekkaaral boobu du affaire nit ñu sàgganu pour mu mën a wut nu mu def réversibilité opération loolu tamit il faut ñu teg ko. Zelensky mhm. bi mu koy wax tamit dafa dafa bëggoon euh, Russie euh, sàgganu pour que ñoom aussi ñu mën a. ñu mën a gën a defaru donc loolu Sun Tzu wax na ko nee na toujours ci guerre da nga mm-hmm. jékki-jékki benn moment nga wone ay faiblesse yoo xam ne du dëgg mais parce que Sun Tzu moom guerre manœuvre la ko teg tegu ko ci xeex. daf mm-hmm. la da ngay manœuvrer. donc manœuvrer boobu. Mm-hmm. ay pexe ngay def di wane ay pexe yoo xam ne day tax. dafa dafa laaj caay caay yu rëy. caay ca voilà caay caay jooju nag mooy gagné guerre nee na. nee guerre boo koy def da ngay def. alors léegi jàmm ji euh, ak ak dëgg ñu ngi ci waxtaan.

Mhm. pour sax les nations unies remplacer les troupes soviétiques qui front est donc front est bi. moo leen gën surtout que boo front est bi fa la mer Noire fa la mhm. mer ñaari ok parce que affaire ko kon dem ba ci biir au nord pour capital bi. Ah. parce centre de gravité bi mais mm parce que fële amoon nañu déjà crimé ñom ñoko momone moomoon. Mhm. Donbass dafa amoon ay ki ay ay ay séparatistes ñom ñoko ñu leen jappalé leen. donc mhm. fofu mom ba légui ñu ngi ak Mariupol mais fofu avantage stratégique bi moy problème bi c'est-à-dire que jël la mer d'Azov ak jël la mer mhm. de la mer de la mer de. mais mais loolu négociation bu la ko nangulé tamit euh, dinañu dina am précédent bu dangereux di àddina mu ngi melni rek ku yewu won rek ne man sama dëkkandoo yi dama bëgg jël ñaari ñaari pantrée ci seen kër. waaw loolu loolu la wax ñu ne bu la ko négociation nangulee it de loolu sax de dee ko gën de boo nangoo ñu jël sa waañ de bu subaa sa salon la ñuy jël. waaw waaw boobu la ñuy wax léegi ñu ne kon bu bu buñ ci paree américain rek hmm. hmm. ñu ne Chine nu muy def ak Taïwan. oui ah du ne Taïwan si man la bokk kon boog dama koy jël jëli. Hmm. voilà Chine jël la mer du Japon xam mer du Japon boobu tam ñu ñëpp ñuy xool loolu mer du Japon. xam mer du Japon dafa tudd mer du Japon tudd mer de nekk ne mer bi maa ko moom. donc loolu tamit ñu ñu pour mu bañ précédent ci hmm. rapidement ci bilan bi. bilan bi oui. bilan bi euh, ci ci ñu hmm, hmm. mais pourquoi le système attaque bi ñuy def euh, mën na am mais si si bari na ñu ñoo Russie ñoom ak Chine deux généraux dee nañ ci mais deux deux tamit xaw na xaw na ah kon kon général dañuy xeex xam nga euh, ci ci ci entendement wala nit ki xamul day foog ni ab ah. général moom day ne ca ginnaaw rek di joxe euh, commandement. waaw mais ci division. Hmm. boo jëlee boo jëlee division. Hmm. division ay général division moo koy commandé. ok donc ki nga commandé mi ci terrain bi. mooy jiitu waay. mooy jiital c'est que du jiitu nekk ci kanam. mais mooy jiital opération yi waaw moo jiital opération bi parce que dafa am état major boo xam ne mooy ànd ak moom. mais bu ñu rayee sa général wàññi nañ lu bari ci yow de. waaw waaw bien sûr ah loolu moom ça montre que gars yi fi ñuy attaqué la fi ñuy fi leen di attaqué ak les les armes là foofu mm-hmm. loolu moom mooy ndimbal parce que ci généralement ci ginnaaw lay nekk. Mm-hmm. waaw ci mooy état major division bi ci ginnaaw lay nekk. ok waaw wala mu nekk ci digg bi sax day nekk foo xam ne. si lay mm. gën a mën a commandé unité yi donc si ni combat bi di demee noonu lay mm. def. bu mm-hmm. nekk ci ginnaaw bu ñuy approché. après mu ñëw ci digg bi. Hmm. bu fekkee ne ñëw nañu ba egg fi ñu jëm. bu ñu hmm. bëggee dugg nag ci biir capital mu ñëw ci kanam pour gën a mën a joxe ay hmm. orientation ci loolu. maintenant comme moom mooy servo bi ku ku la rayal sab général moo la moo la dàq stratégie. boobu la ñuy wax euh, centre de gravité stratégique cest dire que ñu bari dañ koy wut ci guerre. Euh, boo gisee deuxième guerre mondiale général Yamamoto. oui moo doon général du Japon. américain dañ ko dàq ba rey. bi ñu ko am difficulté pour continuer coordination opération ok parce que utilise ci centre de gravité la bokk ak communication parce que communication fut tamit am na ci solo. Mhm. parce que euh, Russie, yi xam nga bu ñuy attaqué dañuy commencer par centre de communication et télévision yëpp la ñuy dindi. mais américains ils ñoo leen indil benn satellite pour xam ne mai leen ils nous ñu mën a attaqué te lii armée yi ñu attaqué. Mhm. dama bëgg wax ne li dafa yomb parce que li ñuy wax fire and forest doo viser doo doo doo viser. Mhm. da nga koy da ngay léegi moom nu muy jotee nu muy jotee cible bi dafa intelligent. c'est-à-dire voilà dafay am dafa am benn ci intelligent ci biir. Mhm. mais dafa am aussi benn système d'éclairage dañ koy dañ koy éclairer. c'est-à-dire ah. dafa am benn comme laser bu ñuy éclairer ci objectif bi. Mhm. nga xam ne bu bu kii bi demee laser boobu ak benn satellite ñoo koy diriger. ok mu ñëw dal ci kaw mu ñëw dal ci kaw char bi muy attaqué wala kii et cetera mais doo doo viser di door da ngay sànni rek bàyyi. mais ñiy joxe armes yi tamit ñoom presque léegi ñu nekk ay belligérants ñoom it de léegi ñu bokk nekk ay ay ay aji xare de. ah booy xeex nit kay ki koy ji ki koy ki koy jotali paaka bi ci ginnaaw bu yàggee boo ko mënee song song ko. waaw mais <laughs> joxe di soo jaaxlee kay lu ne mun na ne mais maintenant nucléaire gi parce que xam naa problème bi yëpp mon colonel boo gisee yëf yi si fii yëpp ku ne di di di di moytu sa moroom mooy nucléaire gi xanaa ba ñuy ba ñuy fent nucléaire fent nu anti nucléaire. waaw ñu ko indi. Hmm. li nekkoon ci ginnaaw mooy mooy arrêté guerre cest bu ñu ko amee rek dootuñu am koy indi dañ ne bu ñu ko bu ñu ko indi parce que da ngay indi tiitaange boo xam ne ku nekk def naan man du ma guerre ndax mën nañu ma dóor arme nucléaire. mais après dafa dafa kooku kooku loolu moo ko indi woon. loolu moo dañ bëggoon mu nekk genre épée de Damoclès faf faf mu mujj doon nag menace dangereux. exactement mooy mooy li ñuy wax dissuasion c'est-à-dire kenn dootul guerre ndax nucléaire am na. mais ñu xool ne 1950 euh, Chine dafa attaqué troupes américaines yi ci 36e parallèle xam nga 36e parallèle moo jëm américain dañ jëmoon biir Corée. Chine yi Chine ay attaqué mais américain ñu ngi yore bombe atomique te Chine yi Chine ay na day MacArthur bi ko bi bi yoroon colma dafa demandé président américain ñu may ko autorisation mu utiliser bombe atomique ci Chine. Hmm. ñu relevé ko. comment hmm. général président ko ne ko man rek maa ko mën yow war ko xalaat di ma ko wax donc ñu relevé ko arrêté guerre bi arrêté si 36e hmm. donc donc kon bombe atomique Mhm. parce que guerre ci suuf la ci suuf si. ku ci nekk dafa am équilibre moo lay wax équilibre latéral dañ jékki-jékki ku nekk am bombe atomique. man ma mm. am Russie am France am Angleterre am ñi mu commencé nekk lu lu banal. Mm. bombe atomique dafa banal Israël am na euh, Iran mi ngi ci donc. Euh, mais ça loolu nag dafay mujj doon danger ci monde bi quoi. waaw danger. équilibre bañ doon wutak loolu ku ne tee sa sikki mu morom. mais finalement dafay mujj doon nag euh, fourne boo xam ni mën na jippet saa su mais loolu mooy indi xam nga loolu mooy dëngeej bi ma lay wax loolu mooy bu ku nekk amee bombe atomique. Ah. day indi waxtaan. parce que mm. moo indi woon négociation solde. ok waxtaan boobu moo indi ñu ñu arrêté kii yu bëri ñu ñu ñu désarmé bombe atomique yu bëri. et cetera loolu loolu moo koy indi cest dire bu ku nekk amee loo xam ne euh, mën nga ci rey sa parce que dama lay rappelé bi ñu un jour ma laan dëggoon ne na woon man. soxlawuma ñett juróom benn fukki bomb benn hmm. bomb doy na hmm. ba mu doree ba mu mënee rey fukki yoon ma rey la benn yoon doy na ma dóor la benn mu jeex ça veut dire que ñoom xam nañ ni dans un monde injuste la ñu nekk eh, eh, daf may permettre ma dugg ci wàllu euh, arme chimique yi mon colonel ñu ngi wax ne way euh, Russie war ko génne fële c'est c'est une menace présentement alors que ay jamono Syrie euh, njiit la génne na ko ba pare américain yi mel ni ñuy tànqamlu wala ñu ko gisul c'est-à-dire à dire arme armes yooyu mooy wax les armes NBC RNBC. Mhm. c'est-à-dire que nucléaire la chimique biologique. dafa am dafa am lu ko tënk arme yooyu c'est-à-dire que euh, euh, nucléaire mën nga ko utiliser parce que américains utilisé nañu ko en 1940 à 1945 en ci ci Japon. Mhm. kon utilisation arme nucléaire yow yaa koy décider mais utilisation arme biologique ak chimique yow yaa koy décider chimique pour nga utiliser ko il faut nit ki utiliser ko ci yow. mais dama ni Syrie. Euh, Bachar al-Assad def na ko ca euh, américain yi woote ay justice ci monde bi ak ñu mel ni ñoom euh, dañ ne patt euh, pour revenir ci injustice boobu ñuy wax concernant ce monde bu ñuy dund nii. waaw parce que xam nga yaa ngi dellu si toujours injustice. Mm-hmm. c'est normal. Mm-hmm. parce que àddina. dëkk yi amuñu xarit. Mm-hmm. ay intérêt la ñu am. ok américain bi ko bi ko Bachar bi ko kii defee Alassane ngay wax mais. Eh, kii def na ah, ko Alassane waay ak kan. Saddam Hussein. waaw mooy xalaat ba mhm. mais kooku si biir dëkkam la mhm. yaa ngi sa dëkk am benn parti boo xam ne dafa bëgg a séparé wu nga yóbbu sa armée armée bi doyul nga jël arme chimique mais loolu c'est c'est grave c'est c'est l'extrémité même loolu lool loolu fa la fa la fa la mbon mun a yem ku waxul ci loolu kay leneen lu ñëw bu mu la jaaxal waaw reproché nañu ko mais comme dëkkam la xam nga sa dëkk moom. Euh, ah non non euh, non le droit ne te permet pas quand même y a y a des structures mondiales xanaa yu yu réguler loolu. waa xam nga droit d'ingérence moo la ñuy wax droit bi nga xam ne mooy may sañ-sañ nit bu dugg ci yëfu yëfu dëkk nit mi ngi am ci 1994 après après kii après euh, Rwanda. Hmm. si ñu indi le le le droit d'ingérence sax ci la ñu jàpp kay sunu pat suñu njiit yi di yóbbu rek surtout que noir yi lañ gën a yàpp ca CPI googu. finalement ça ça revient ci table bi rek gis nga euh, mon colonel. ñu hmm. fi daal dafa mel ni euh, c'est une jungle quoi ku ëpp sa moroom doole rek. waaw léegi nag xam nga mën nañu dugg tuuti ci bilan bi. ci ñu ko ni ci bilan parce que am na beneen beneen beneen euh, comment on appelle. beneen mm. euh, conséquence. oui mooy li ñuy fàtte toujours réfugiés yi mooy li ngay wax nii dafa am ñoo xam ne dañuy daw seen dëkk. Mm. ñii di daw mm. amul lu ñu lekk ñii di et cetera. Mm-hmm. donc gis nañu fii ne depuis guerre mondiale. mosuñu am mosuñu am lii. Mm-hmm. mosu euh, Europe defoon na ne du am lii Afrique rek lay nekk. Mm-hmm. donc kooku conséquence la il y a presque dix millions. yoo xam ne dix millions réfugiés. dix presque dix millions presque dëkk la. Mhm. waaw Europe mosul mosul gis loolu. am na beneen beneen euh, conséquence mooy ci euh, économie. Mhm. monde bi may carburant baa ngi jóg essence baa ngi commencé yéeg. Euh, parce que blé bi ñu ngi wax affaire blé. parce que blé bi ñoom ñoo koy Russie ak Ukraine ñooy ñooy ñooy produire ñooy ñooy exporter ñaar ñaar yi bu ñu jëlee ji ñuy exporter lekk ci blé ci àddina bi. Mhm. def def xaaj ko ñett ñaari Russie ak Ukraine ñoo koy indi. Mhm. te loolu parce que bato yi mënuñu génn mer de mer mer Noire. pour mhm. dugg Méditerranée ba pare indi indi indi kii. Mhm. donc donc kooku tamit ci. àddina ci boppam la ñuy rëddaat fi ne. foofu laa jëm si ci conséquence xam nga ñu bari nañ ne Afrique mën na am xam ci pandémie bi loolu la ñu waxoon ñu ne Afrique mën na ci am lu lu lu mën na mën na yàq lu bari ci Afrique. te yàqu fii lu bari. en fait finalement. ñu ne guerre boobu aussi Afrique comme suñu économie dafa faible. mën na yàq suñu économie. ci ci xiif lañ jëm kay lañ wax. waa ay ay xiif lañ jëm mais nag dañuy toujours tuumaal Afrique loo xam ne euh, africains yi quand même am nañu résilience am dafa Afrique africain yi am nañu loo xam ne mën nañu toujours mu bañ egg foofu. Mm-hmm. mais fi mu mën a egg aussi mooy ñu xoolaat relation internationale c'est-à-dire que benn nouvel ordre benn ordre bu bees. oui boobu nag say suñu avantage la parce que bu ñu ordre bi arrangé wuñu mm-hmm parce que Nations Unies moo fi nekk amuñu fa droit de veto c'est-à-dire que buñu buñu décidé fofu américains yi ñoo ci teg wala chinois yi wala kii lolu ñu demandé. Mhm. nouvel ordre bi ñëw bu fekké né guerre bi dem na dem na ba indi ki nouvel ordre euh, arrangement mondial bi ñëw. Mhm. Afrique am ci quand même bu dee sax ben ben droit de veto bo xamné uy Union africaine yépp boko bok mhm. donc nouvel ordre bi jóge ci guerre bi dafa ñuy arranger xam nga guerre dina arranger ni dina ni oui loolu moo tax ñëpp dinañ xam ne dina am mais kenn du ci def dara parce que ku nekk mi ngi xool ban avantage la ciy am. Hmm. ban wala ban inconvénient la ciy am ci état noonu la état yi di réfléchir. dëgg la voilà bii xamoon nañu. moo tax ñu bari bañ bañ euh, Zelensky embarqué leen ci guerre bi ci waxin. waaw parce que <laughs> boo boo euh, boo leen embarqué. Hmm. seen intérêt lañ ci xool. président américain kii nu mu tudd Washington waxoon na ko américain bu leen bu leen topp européen. bu leen hmm. parce que européen yi ñoo leen yóbbu wax na dëgg ba deuxième guerre mondiale et cetera. Mhm. mais après américains ñoo yóbbu européens ci guerre. donc euh, dafa inversé wu. très bien voilà. en tout cas ay du yam ci bopp borom ñu ngi lay gërëm mon colonel. <laughs> ñu ngi lay gërëmati. jërëjëf merci beaucoup allez bonne journée. merci merci. colonel Mamadou Aaj ñu koy gërëm bu baax ci dolli gi mu ñu dolli saa su ne ci gën a gindiku rek Ablaye xel du doy xam-xam na ko noonu <laughs> bu monde bi munta yàqu sax wala mardi im sa dee euh, munta ñàkk nit ki xam la leen rey.

Thank you. jërëjëf Ablaye ci réalisation bi jàmm am na solo lool ci la lépp 88 628 14 14 RFM radio Futur Média asalaamaaleykum Ablaye bu kenn newul serveur bi nga continuer animation bi nga xam ni daa mel ni neex na la lool sa bopp bi moom yaa ngi koy yëngale <laughs> yàlla bu mu fa war de bala fa. <laughs>

tey di nga am doole ba yëkkati seen loxo gisoo mbër yu mag yi ni ñu amee doole mais bu ñuy bëree ki leen daan sax duñu mu jógee. <laughs> la de. moo tax xeex baaxul. xeex baaxul. alxuraan li mu ba xaw la yéen doole ji mu amoon mais bu muy histoire bi mu a def dañ na mm-hmm. dem négocier ji mm-hmm. ba dal bi dellu si. dëgg la mais ñun dañuy jaayante doole am na arme yoo xam ne ñoom dañ ko yor yëpp pour wàññi askan wi tamit asan mm. parce que ñoom dañu ne population adduna bi dafa bari il faut que ñu wàññi. <laughs> ah loolu ba baax xalaat bi baaxul. wallaahi man ñeme na maa dóor sama loxo tubaab yi nii. Ah. aw askan rek la ñuy bañ a gis maanaam mbooloo mu bari la ñuy bañ a gis. <laughs> am nañu ay moyen am yëpp mais bëgguñu gis mbooloo. Mhm. moo tax population yi ku ci yeewul danañ wàññi sax askan moo tax réew yi nañ yem fi ñu war a yem kenn ku ci nekk am nga sas na nga yem ci sa mhm. mais lëkkaloo bi ñu def ak ñoom nii jaay bi ñuy def nii askan. Mhm. Euh, subir de conséquences yëpp ñun africains yi ñoo ngi ñun amuñu doole amuñu dara taluñu lépp ñu naan ñu te ñoom ñu ngi ci milliard toog ci. Mm. fii ak mille ans. Mm. am nañ seen compte banque yaa ngi fekk delloo ko xaalis te xamuñu ni ñu koy def. dëgg la mais lu ñu am rek ci africain yi dañuy ngecce ngecce ngecce ngecce nañu Afrique ba dara dëgg dëgg Alaaji Assane Gueye. Mm-hmm. day na waar jërëjëf jërëjëf Niang jërëjëf. Mm. jërëjëf vraiment Afrique nag moom war nañ ko ba ak yalwaanam 88 628 14 14.

guerre moom amul fu mu baax fenn fenn dafa metti sax wallaay dafa metti gisee njaboot njaboot yi mu tas borom borom dool yi ñoo nekk foofu di xeex seen biir te ñun ci ñun lay mm-hmm. ñoo ñoo ciy gën a métti de ñoo ci gën a sonn ñun amuñu doole xeexuñu xeexaan yi te ñoom ñu ngi xeex foofu seen biir ba pare hmm? ñun ñoo ci gën a loro ñu xëy rek ñu naan lii yokk naa ak lii yokk na waaw te ñëpp ñoom ñoo ko sooxee te ñoom ñu seen compte banque tey ñoom seen compte banque yi mënuñ si lekk dërëm hmm. yow da am sa compte banque yoree sa alal bu pare xëy jël sa gaddu si benn nga loolu amatul njëriñ hmm. mais ñoom dañoo liggéey xam nga est tax ñun a liggéey rek donte ñoom sax nañ nañu a liggéey liggéey rek suqali ñu yor rek waaw hmm. waaw li ñu yor ñun tam lu ñu yor fii bu soobee yàlla bu defal jàmm jërëjëf jërëjëf jërëjëf Moussa ñu ngi lay bu baax ñoom liggéey leen ko may donte ci njëlbeen nit doxee ginnaaw nag Ablaye sàcc sunu alal yëpp Afrique waaw waaye nañ jéem a góorgóorlu rek ndax Japon gi ni dóor nañ fay bomb terewu leen dekki ñu ngi ci parmi les premiers 88 628 14 14 Assalamu alaaji Assane assalam. salaam. bisimilah sëñ bi. Je Guèye la mi ngi lay ah sëñ maa ngi lay ziar ko bokk. dina namm waaw raw na yow kay gëj nañ déggante nag xam naa yi tey la. <laughs> sëñ Sonia bu dafa mel ni ah, très bien jërëjëf. di wax ni euh, li nga xam ne mooy xew bitim réew ci gerte. Mm-hmm. sëñ Sonia bu déplacé wul tuuti pour réseau bi sëñ Sonia bu. waaw leerul de. ah c'est dommage. doom bàyyi xam naa ñu joxantewaat ndaje rek beneen yoon dafa mel ni parce que euh, neexul ci dégg-dégg di ko ziar bu baax asalaamualeykum allo. salaamaaleykum. waaleykum salaam. sëñ Assane ñu ngi ziar. yàlla na yàlla nagu ziar kooku. mbir mi daal xam naa. Mm-hmm. di fàttaliku ay wax. yi tàggat ak defar dina ci sax. Mm-hmm. ñu ñëwee suñu réew mi. Mm-hmm. suñu góor yu baax. anam mm-hmm. ci lu am solo. oui. suñu Abdoulaye Mbacke yàlla na yàlla mm-hmm. yokk leeram. miin yaaram. doon na wax ni bu ay demee. Mm. bu jàmm demee. bu jàmm demee. lu waaye ne woon di nga ko ba ba mu dikk. sëñ Babacar Si radiyallaahu taala anhu. yàlla na yàlla yokk leeram. amiin yaaram. mu ne bu jàmm demee. Mm-hmm. soxla di benn billaay ñi ngi jëm foofu nag mm-hmm. waaye xalaat biñ ci war a def waaw moo di ñun ñii mm-hmm. ñun ñu yëngu rekk ñu yuuxu oui war nañ seetaat suñu bopp booy seet sa bopp waaw bu jàmm ñëwee ba ngay jógee fagaru di wóolu sa bopp wóolu yàlla àdduna ak yëngatu du fi jóg mukk am boroom buur bi dëgg la yii yëpp nattu la mhm. ndi ñuy boole ñaan oui ñaan ba El Hadj Malick Sy mhm. radiyallahu doon def mhm. yal na yàlla di wàcce natt yu ñu àttan ci ñun amin yaa rabbi amin yàlla na ko yàlla def jërëjëf jërëjëf yàlla ñu yàlla boole ñaan gi jër jëf macha allah rafet na euh, àddina nattu du fi jóg mag ñu baax ñi lañu waxoon du deñ Hmm? nit nag boo amee repère rek macha allah ba ci topp mooy capacité résilience bi euh, du yem ci làmmiñ rek waaw ci ci jamonoy jàmm ngay waajal euh, natt yu ni mel euh, maanaam boo ne ne bërigo bële ca jam ñaajo bu ñu fa eggee nga yanu ko yow bu ñuy dem wutal teeñ rek Ablaye waaw yoon wi yëpp del lëmas sa teeñ di defaru di waajal parce que bu fekkee da nga koo nar yanu rek moom waaye ñun dañuy jàmbat rek loo nar a yanu moom wutil téeñ rek téeñ ba mooy résilience bi nangoo liggéey bay dundee et cetera Euh, wàññi xaalis ak fan ko yóbbu ci réew mi wàccee ko tuuti baar bi euh, doylu nit boo doyloo rek euh, mën nga rëcc yu ne asalaamaaleykum <laughs> cheikh bi mu ngi bàyyi ko mu noppi <laughs> asalaamaaleykum. aleykum salaam wa doo ñu baal kooku. da fay rajo bi waaw décalage bi mooy. Ah, man la ça va. Ah? Umar Sow la. Umar ñu ngi lay ziar bu baax. ginnaaw bi sant yàlla julli si bi rafetlu liggéey bi. alhamdulilah. Alaaji Assane Nga may ma tuuti ma rappelé vraiment Babacar Fall tey invité bu mu invité woon. Mhm. wax dëgg yàlla El Hadj Babacar Fall. mu doon wax am na solo trop man ka gàttaay biir moom si xaw a si. <laughs> daa gàtt invité bi. sii yéen yéen doog am invité vraiment bu amal njëriñ askan yi la. alhamdulilah. lu ma la wax noonu tey. Mm. sincèrement kooku buñ ko mënee tegaantaal vraiment populaire man ñu bëri def nañ ma si message. Mm-hmm. ñu ne ma taal Omar waxal donc yow faral nga dugg di ala ci Assane Gueye. ci mm. invité buñ ko mënoon tegaat vraiment soxla nañ ko trop. ah allah merci. vraiment Baba Babacar lay dégg ak Georges. voilà <laughs> léegi nag euh, euh, lu ma ko lu mu wax. Mm-hmm. ak. Oh voilà ñu koy jéggulu bu baax Omar Sow mais ni mu ko waxee invité yi euh, ñu ci bari dañuy amal askan wi solo lool ci wàllu wér-gu-yaram wàllu économie waaw <laughs> waaye koo xam ni day ñëw 15 minutes ngeen xuloo ko dem ñu déglu woon sax koo ci woowaat 10 heures ne ko invité bi nga doon déglu loo ci retenir du cee jàpp dara émission nangam télé yi ñu tiim di seetaan léeg-léeg nga tiim débat ba pare ku la woowaat ne la bi nga doon seetaan léegi ci lan la doon wax doo ko xam ku ne sa bopp ngay da ngay ku ne da ngay wane voilà man daal sama xam-xam la toll. alors que dañu war a euh, xeltu bàyyi boroom xel yi di wax ñii laaj wàññi seeni laaj ba boroom xel yi. Euh, pas di wut tur <laughs> tudduma kenn nag asalaamaaleykum. waaw doomu baay. googu. man la Modou waaw Modou ah, noo def waay. maa ngi nii rek keroog maa ngi lay dégg ci match bi quoi. match kii bi ah man match xam nga sama laa miñ ci micro bi rek laay footballé. <laughs> ci micro bi laay footballé bu jotee ma réer. yow te toj nga tur la waaye de. Thiès ah, day waaw loolu moom loolu moom ñu ma koy jiiñ ah. bu dee gaa yi ah, gaa yi léegi ak ah, suba garaaw nga woon. toju ba fenn ñi toj mooy ñi am ay milliards jamono yi signé ay contrat ca Liverpool <laughs> ak Arsenal yooyu. Badou. <laughs> gaa yi nga xam ne dañuy. gaa yi gaa yi daal la ay semaine quatre cent millions la ñuy laal. gars yi dañuy football benn nawetaan rek naan toj naa fi ñi toj mooy macha sunu gone yi nu yóbbu Qatar. <laughs> waaw ñii dama wax dëgg yàlla ñu ngi leen di ñaanal bu baax di leen encouragé. a baax. amiin yaa rabbi. te ndaw ñoo am solo lañ. ñoo xam ku leen yóbbu. xam naa ne fële moom. sagal nañu gëm naa ne dinañ fa am lu raw lu ñu amoon. non fële sax moom xam naa dañuy ambition mais ñoom daal def nañ li ñu a ba pare li ci des ah, nag. mat na de. vraiment ah, sagal nañu. man de man de maa doon wax Aliou Cissé nekk dama daan critiqué ndax bëggoon équipe bi tax mais nag nit baax. ne ko li nga def baax na. déedéet da nga naan euh, Aliou Cissé kay li mu def baax na kenn waxatu ko da naan nit bu juumee danaan juum naa. waaw Aliou Cissé na leen ni la mu teg boobaak léegi moo jur résultat. <laughs> moo jur résultat de. <laughs> Ah, yaakaar xam nga nag. kon kay ñun nag dañoo mosoon am benn affaire boo xam ah. mooy. togg tey mu sotti tey. loolu mënta ne. daa mën na ne maanaam maanaam tey jii nii. Hmm. maanaam tey tey tey tey nga bëgg a liggéey tey. waaw nga war a am cinq mille. ne léegi man damaa war a am milliard tey loolu mënta nekk dafa am yoon booy jaar mais nag. Hmm, xanaa nga nga doon napp sàcc <laughs> am na de yii am na gaa yu seen loxo ñi teewul seen loxo waaw. waaw loolu loolu hmm, hmm. jàmm moo gën ay si gis rek. maa maanaam lépp loo gis nit ki nekk rek ba am si taw féex sañ a def yenn dëgg la am jàmm boo amul jàmm lu bëree bëri doo ko mun. moo tax am na gis nga doom bàyyi doguma la mais jàmm dafa dafa jig sax kii kii kii kàttanam bariwul. xam nga réew yu naat yi sax dañ naan wéy am nañu réserve. xam nga réserve mooy lan. denc naa ca ca sàq ma. loo xam ni ay at ak at waaye ñun dañoo dencul ñun dañuy xëy dem marché tey. waa dañuy voilà. moo tax yàlla yàlla na jàmm ji sax. xam nga xam nga ki ki nga xam ne ni dépassam bi maanaam ni ma ko mën a tuddee dépassam mat na. Mhm. bokk la ki nga xam ne ni yow. tey da nga ne tey damaa wàccaale benn cinq mille joxe naa quatre mille yi mille franc laa de tey damay xëy wutiwaat mhm. léegi wutiwaat boobu ngay wutiwaat yow xamoo ndax da am mhm. quatre mille wala cinq mille xamoo ndax sa dépense dina matam déet yow mm. boo ki nga xam ne mm. yoo nii da teg sa bopp beneen coono boo xam ne nii du sotti bu ñëwee mun na laa indil beneen jafe-jafe yoo xam sax mm. dina dina gën a metti yow li nga xam moom nga doon bëgg a dund moo tax nit moo tax lépp luy jàmm daal Mm. moo mat a ñaan lépp loo xam ne ni guerre bii di am nii. Mm. bu ñu xeeb ne ñaari réew ñoom ñoo koy def wala ñaar ñii la. luy raam mën naa egg si nag bi te yàlla nañ si yàlla musal. amiin loolu yëpp daal dafa mat di sóoraale bu a a moo tax tey invité bi nga invité woon mm. ñu ngi ko doon déglu baax di si bàyyi xel am na sa benn xarit. Bas Diop la tudd ma nga ba Touba mais Kër Massar lay daane doolam mais nee moom dalay bëgg lu bare bare day bëgg a dugg mais du mën a dugg dëgg la maa ngi koy ziar Bas Bas nuyul ma ko baax waay vraiment ñu ngi koy ziar di ziar ñëpp ñi mel ni moom Euh, yéeneen nu jàmm ca dinu nu suivre boobaak léegi di nu joyanteeg yeneen léeg ab ànd loolu lay jariñ nit ku dul juum amul waaye it euh, ni ñu ko waxee euh, cofeel gi dafay yokk njàmbaar ci ñun ñu ngi gërëm ñëpp ñi nga xamante ni safoo nañ groupe Futur Média rawatina RFM rajo Futur Média ca soppe yooyu ngay muñee noon yi <laughs> léeg-léeg nit daggal la saaga woo xamante ni waaye nga muñee ko ki la bëgg ca defaloo ko dara waaw jërëjëf Ablaye jërëjëf Yacine Pouy jërëjëf soxna Fama ci réalisation bi ñu yendu ak jàmm